ñoo commencé ci suuf ndem suuf am na di dem di dem di dem ba ci His Excellency président aadama baro euh, commissioner ñëw na fii ci muy commissioner naka la euh, commissioner maa ngi fàtte sant bi Mendy commissioner Mendy ñëw na fi ànd ak délégation am muy paraministres muy police officer muy immigration ñeneen ak ñeneen ak ñeneen indi na leen ñu bari fi lool ñu ñëw fi pour saytu kaaraangay doomu aadama yi fi nekk ñëw nañ laaj ñu naka ngeen buggee Maolana Cheikh Alaaji Saïd daf daan wax naka la buggee ñu defee noonu gis nañ leen te it yéene dalal xeli doomu aadama yi ku leen gis wax dëgg yàlla du ñemee def caay-caay waaw du ñemee def caay-caay loolu moo tax ñu indi leen fi kon gàmm gi ñoom ci lañ bokk fépp fu waay bàyyeekoo ak loo mën a doon waxuma jullit sax de kuy doom aadama rek nga yegsi ci nga bokk kon Cheikh Boubou jàlloo duñu ko fàtte mu ngi doon liggéey ci gouvernement bi beritaaye na su ko defee pompe bii nga xam ne jamono jii sola du dox ci guddi te boohool bi fi mu nekk amatul ndox dañuy am jafe-jafe ci ndox moo fi gasoon pompe yi ba léegi yi nga xam ne mooy booxal yi fi nekk benn mënut dox ci pompe bii rek la ñu mën a jëlee ndox tax ni li fi nekk ci doom doomu aadama pompe bii rek mënul leen di saaf jafe-jafe boobu tamit ñu ngi koy jànkuwante kon sëñ Boubou Diallo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm su suñu dellu siwaatee dinañ dellu ci ñi nga xam ne ñooy muqaddam yi ak yeneen i kilifa fàttewuñu leen waaye waxtu bi moom la ñuy sakkanal ndaxte al waktu galia galia giddan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu. Eh, ministre waktu wu ngeen bugg a yeewee ko rek su boobaa yaatal nañu leen xam naa taw bi mom dafa mel ni dafa ne ku na fajar gi xar te suñu daan gàmm fajar gi di xar. ba ñu tollook jamono bi nga xam ne ci la nabil Moustapha juddu bépp noyes bu doon am ci biti dinañ fexe yëpp taxaw suñ ko mënoo nit ñëpp dañuy jóg taxaw waaye suñ ci yegsee dinañ ca waxtaan ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne jotaay bi seen jotaay la nu ngeen ko buggee rek ñu ngi leen ci fekk si te itamit di leen wax ne soxla yi fi nekk yiñ soxla seen soxla la su ko defee duñ leen ci waxaat leneen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam naa Cheikh Ibrahim ni ñaa ngi xaw a tayal tuuti nit ñaa ngi xaw a nelaw xama ñu ngi gëmmentu xama tooyaay di leen jàpp kon cinq minutes juróomi minutes nga yëngalal ñu affaire bi juróomi minutes ba ñëpp yeewu nga delluwaat ñi micro bi Ibrahima waaw cinq minutes cinq minutes rek nag laa wax incha allah am na allah allah allah ñu ne ñëpp toog ku am asan ñu ngi lay ñaan ba ñu mën a yokkal yeneen maayik ñaari maayik rek mooy dox léegi فمحمدنا هو سيدنا فلا لنا لله فمحمدنا هو سيدنا فلا لنا يا رسول الله سبحانه تل تل عتي علي ودجا من يا رسول الله فمحمدنا من هو سيدنا فلي زرنا لجاب يا رسول الله فوق رسول الله فضلا ولا ينن أداه محمدنا هو سيدنا فلسلنا لإجابة من كنس الكرم ومولا ونعمه هدوى أممي رسول الله فمحمدنا من هو سيدنا فليس لنا لإجابة من بأسكان نسبي وآلا وحسبي من كل العربي يا رسول الله يا محمدنا هو سيدنا فليز لنا لإياه ومن الأمر والساعة شجرة نتخلوى هجر آي منسوخ الخمر يا رسول الله فمحمدنا هو سي سيدنا فليز زلنا لإجابة بطلني من جبريل ورا وهلة الله أسرع ورا ودعا يا رسول الله يا فمحمدنا من هو سيدنا فليس لنا def na ni ne naa la saraba walla walla ne naa la ya rasulallah fa muhammaduna nen huwa sayyiduna fa lana

رسول الله وخير رسول الله وخير رسول وخير رسول وخير مصطفى كرم وخير مصطفى كرم وخير رسول من الرسل فاقوى الرسل فدلنا ويوهلا من أودا سبلا دلال مصطفى كنزل ويكرم مصطفى كنزل ويكرمك أنن كنزل ويكرمك أنن كنزل ويكرمك كنزل ويكرمك رسول الله كنز النوار يا حبيب الله كنز النوار كل جس كنز النوار كم لامو نج كنز النوار كم دبلو نج كنز النوار كنز النوار يا مصطفى كنز النوار كرمي من مولا نعمي بدي واي أممي من اللي أزكى نبي مصطفى أزكى نبي مصطفى أزكى ونسبي من الله حسبي كل يوم حرمي كل يوم حرمي كل يوم حرمي مديه من ساعتي وعيش من ساعتي وعيش أجرا ومنهن تخلوهم أجرا خلمهم قمرا ومنهن بإزارته جبريل أتى ومنهن ليلة المهم أسرا تل تل نبي مصطفى ليلة تل تل تل تل تل تل يا رسول الله فمؤمدنا من وسيدنا فلسلنا لإجابته jërëjëf Cheikh Ibrahim jërëjëf Cheikh Ibrahim kon ñi jox bara mu Daniel ay kàdduum defena naa won ci Muhammad mi nga xamne ne Muhammad moomu moom la ñuy wax wa fi xuluqin walam lam yudanuhu fi hilmi wala karami moy borom guddigi bismillah bismillah alaykum warahmatullahi wa serigne Modou ni nga waxe rek xamna legui am nañ problème waxtu waye sallallahu alaihi wasallam mom, comme kenn manuko jéxal te mag ñi ne lu ku man luñ tu jéxal lo ca am bul ko xeeb waye dal xam nañ ne mom suñ borom miko yónni moo ko sellal comme ni nga ko waxee imaamul Busayri di ko tagg ne faaqan na fi xalqin wa fi xuluqin walam yudaanoohu fi ilmin wala karami mu mel ni ci biñ tàmbali waxtaan ñi ngi wax ni ko suñ borom teel a waajale ci xam waaye bi mu xamee la mu xam mu jëfe ko bu sayri yu boole ñaal yooyu ci bayitam boobu ne moom yonent yàlla muhammad kaw na yonent yépp ci bind rafetuk bindam waaye ci jikko muy rafetuk jikkoom moo tax mu ne it nag jege ñuñ ko ñoom ci xam-xam jegewuñ ko it ci tabe ak tedd nga suñ borom taggee ko ci loolu bi ñu ubbi suñ waxtaan ñi nettali fum waxe ne ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaqi maa yónni ngir te jikko yu tedd yi nga xam ne moom la nit wara meloo pour yéwénal kaw suuf te duñ fi yàq dara yooyu jikko moom la ma yàlla yónni pour ma mottali leen suñ borom dëggal ko ca alquran ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin yow bu jikko ju baax doon fëtëy yaa nga ferenk laayu ca kaw fu waay mën a toll ci jikko ju baax yow yaa ko kawe jikko yooyu suñ borom xamal ko yàlla tagg ko ne xoolam ba gëm na li ko yàlla xamal mooy maakal fo aadu maara a yàlla tagg làmmiñam ne du ca wax lu mooy li ko yàlla waxloo mooy wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa yuuxa du wax lu mooy li ko yàlla waxloo waaye duut kuy waxee bànneexu bakkanam tagg na ko ba tagg teggiina ci xoolam bi mu nekkee ca xab qudsi azaagal basaru wa ma bëtam jengul ci li ko yàlla di wan waaye jéemu la romb dara lu ko yàllay wan lu mooy dafay ànd ak teggiinu ci xamleeg yàlla yii yépp yàlla di ko détaillé ci moom alquran di ko wax moo tax dañuy teg baaraam ci tomb bi suñ mbokk daam sekk doon waxtaanee ci ngoon mooy ñi nga xam ne dañuy wax naan gàmmo daganut xëy na buñ ne bidaa la sax dem ci baatab bidaa li muy firi mooy lu xam ne yonent bi nekkuloon di ko def mën nañu dégg baat boobu waaye buñ ko bëgg a tuddee nag lu ñaaw mbaalu lu xaraam su booba ñoom ñooy des a dégg li ndax suñ borom fu ne mu ngi koy wax yonent bi ne ko fàttalekul nangam fàttalekul nangam fàttalekul nangam di ko nettali yonent yi nga xam ne ñoo jiit woon ba ne ko dama la koy defal ngir dalal sa xel gannaaw moom mi yàlla def mu gën a baax ci mbindeef yi moo soxla yàlla fàttaliku mbindeef ya weesu woon ngir xelam dal kon ñun ñi nga xam ne ay royteefam lañ dañuy topp ci ay tànkam di jéem lim doon def ah kon dey war nañuy fexe di ko fàttaleku te yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñi ne dafa wax ne man sanna sunnatan hasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyaama mu ne képp ku yoonal képp ku doxal doxalin wu rafet yow am nga tiyaabooy la nga def ba pare waaye képp ku la ca roy ba yowmal qiyaam di am tiyaab ci toll nit yi mu am moom mi la roy ñiy weddi gàmmo te loo bëgg a wax ñu dugal ko ci saako boobu ñu biddaa wane ne dafa xaram bu ñuy firi xadis boobu Cheikh Modou da man sanna sunnatan xasanatan ñi ne maanaahu mooy man ahyaa sunnatan xasanatan ku dundal sunna su rafet amna yol ba ak yoolab ku def lu ko mel waye ñooñu nañ ànd ak ñom ci li dess ci hadith bi yakana hadith bi jeexagut hadith ba def ci tek ñi ne wa man sanna sunnatan sayyatan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmi alqiyama aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku yonal defin wu ñaaw am nga bàkkaar ca la nga def am nga bàkkaarab képp ku topp ca la nga defoon ba kerek yowmal qiyaam waaw nañ ànd ak ñoom ci genn wàllu hadis boobu nañ firee woon bu jàkk ba nañ fexe ñi firee ko bii ba xam ñoom ndax dañ ci génn su fekkee bu jàkk bi dañ ne duhut yoonal dara di ko doxal waaye lu yonent bi doxaloon la te mu rafet nga topp ca waaw mbaa kon yoon wu yoonu ñaareelu duñ wax ne lu defoon tem ñaaw nga topp ca kon ñoom dañuy bëgg a saxalal yonent bi jëf ju ñaaw te fekk euh, làkk yépp dafa riche waaye arab yàlla daf ko ko defal sun na ñun dañ ko am ñun ñu topp yonent bi mooy doxalin di ko doxal sunna يونت بي صلى الله عليه وسلم داف كو ام موم ميني روي سنة سن برم بي تبارك وتعالى داف كو ام يي بن بو ني دافا ام لوموي تيكي ام ديغري بوم تاخوي سوما واخي ن سن برم دافا ام سنة سو دين گاوي ن نكو ويدي واي دمال سي القران سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله tabdiilan am fu tax ne taxwiilan yàlla doxalinam ci jaamam ni yow jaam bi mënoo ko soppi léeg-léeg nag nit yàkkamtee weddi dina di tax muy jéema a lëntal loo xam ne leer na waxuma ci hadis waxuma ci téere xam-xam yi waaye ci alquran mi nga xam ne yax la fa moo tax foo fekk ñi nga xam boo bëgg def lu ngay avancé ci jikko yonent bi ci fàttaliku ko ñi ne la xaraam na bidaa banaan ba naan luñ fa rey ku ca lekk nangam dañoo xamut lan mooy njëriñal eh, rey ay nag rey ay gàtt ki ginaar ba ca gëlëm ci guddik juddu yonent yàlla muhammad Cheikh Modou damay wax ne su fekkee ne dangay tudd sa doom lislaam daf ne la jëlal gàtt walla nag walla gëléem nga rey ko te yow sa doom ngay tudd lislaam ne la reyal gàtt yàlla fay la waaw may laaj soo bëggee tudd yàlla looy rey gannaaw sa doom nga bëgga a tudd rey gàtt soo bëggee tudd yàlla looy rey laaj ma ko sa bakkan soo bëggee tudd yàlla sa bakkan nga moo tax suñ borom ne faqtulu anfusakum dhalikum xayrun lakum inda baatikum fa taaba aleykum kon boo bëgg tudd sa borom da ngay sebakan, sa bakkan moy say bëgg-bëgg say banex sa sago sa lepp lo xamne da fay ñaawal sa melokan mba muy tinimal sa xol ci bàkkaar lolu ngay ray bo bëgge tudd sa borom fekk duut bo bëgge tudd sa borom waye so bëgge sa borom tudd bopam ci yow ndax ci hadithul qudsi suñ borom mu ngi ne suma jaam bu ma tuddee ci aw ci am mbooloo ma tudd ko ci mbooloo mu gën moom ma tuddee waaye naka ngay def ba tudd ko mooy rey sa bakkan mboolem ñii bi daal lu ñu def te nekk ci lu ñuy tuddee imaan ihsaan ca jotiwut te ma ne woon ci njëlbeenu waxtaan wi yoonu yàlla ñett la diin ñetti la islam iman ihsan islam mi ñew di yar say cër lolu sharia la mo koy leral iman mi ñew di yar sa xol koku tawhid wala nga ne aqida mo koy leral waye ihsan mi ñew di yar sa bakkan ak sa roh koku tasawuf moo koy leeral soo fexee ba làq njett yii sa diina ra su fekkee danga làq sharia te làquloo xaqiiqa boroom xam-xam ba nee na ku cor la soo làqee xaqiiqa te sa yoon ci sharia lu ne nga sànni boroom xam-xam ba nee na kooku zindiq la mooy kuy feeñal ne gëm na yàlla te ca biit dafa weddi yàlla parce que yàlla boo ko gëmee allahul azim boo ko gëmee xam ne war a dox ci service am service ba amuj e ci yow lay dellu waaye pour sàkk sunnaam ci jaamam ñi fokk ñi koy màggal ci wax ak ci jëf ak ci pas lii mooy loo xam ne ja réussir ci loolu ci lay soog a taxaw taxawaay bi nga xam ne ci lay nekkee jaamab yàlla piir moo ci niñ tàmbalee woon waxtaan bi su bi suma borom ne dinaa indi ku ma wut te malaayika yi ne ko danga fiy def kuy yàq amoon na saay-saay bu ne ca ruq ba muy iblis iblis moomu ba ko yàlla sante mu sujjóotal aadama mu bañ yàlla alak ko dafa jëfandikoo tricher ci waxu yàlla xam ne yàlla am na ci jaamam ñi ñum nar a teral ëllëg yàlla nañ ci bokk am na ci jaamam ñi ñum nar a mbugal ëllëg mu sukkandiku ci jooju ne dana fexe moom lekk ci jaam ñi lam man pour dugg ñoom safara waaye lu ko suñ borom wax inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan samay jaam piir ci ñoom lay amuloo ci ñoom kàttan ñan ñooy ibaadullah wuute na ak abidullah abidullah képp ku yàlla bind mën nga wax ne nga taxawee ñaari tànk yore ñaari ko comme nit ci abidullahi nga bokk waaye ibaadullahi képp ku yëgut fi la yàlla féete xamuloo ni mu àndeek yow bokkoo ci ibaadullah soo ci bokkee nag suñ borom ne ko seytaane kii mënoo ci moom dara ndax lan ki gëm yàlla te kanamam leer ci moom ndeyjooram leer mu wëlbate ku xam yàlla càmmooyam leer ginnaawam leer ñeenti côté yi seytaane gañoon ne dana fa ñëwee nit ñi pour yàqal leen ñeenti côté yooyu yëpp leer na ci moom ba fu ko seytaane bëgg ñëwee mu gis ko mën a taxaw pour jàmmarloo ak moom moo tax na inna ibadi cheikh Modou boo kalkine di ayn su euh, seventy la ba two alif di wan am nga seventy three am nga seventy three daal nekk four yaa nekk ten nga am foofu 14 boo ko booleek 73 da dangay am uh, eighty seven déedéet eighty waaw eighty ngay am nga xool juróomi xaraf yi da ngay daal di am ninety two ibaadi mooy muhammad mi doon waxtaanee te tàmbalee ko mooy ñi xam muhammad amuloo foo leen jaar ndax ñenti côté yi nga gëñ moy summa la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymani wa an shama'ilihim fala tajidu aktharahum shakirina sun borom waxon ne wa qalilun min ibadiy ash shakur lol la shaytan dégg diko tricher fok ñi fok ne ci njambaram la katanam amul ben katan ndax sun borom neena inna kayda ash-shaytan kana daifa pexeem seytaane dafa lott waaye nag li muy lott lott xuliqal insaanu fan moo tax su góorgóorlu ba wéedu ci wëy jamono seytaane da koy foye di doxalee ay mission ci moom lu mu bëgg a yàq sànni ko ko ci ay wasaawis mu ñëw jaxase àdduna bi ñu naan seytaane te doo ko joxoñ mukk muy jëmm ju taxaw waaye borom ñaari tànk yi ak nopp yu gàtt yii moom lay ñëw chargé commission mu dox ko yàlla di borom kàttan li nga xam ne lu baax moo ko defar ku judd moo la bind lépp lu bëgg a doxal ak li muy am kàttan yépp ci kaw suuf boroom ñaari nopp yu gàtt yi ak ñaari tànk yi ñoom la koy def loo jokkoogum jokkoog woy jamono tagg ko ca ëllëg mu teralee ko ko nii la yàlla di doxalee jamonoom te fekk kenn deful dara lépp moom la waaye fay gi muy fayee ci buñ defee lu baax soxlawu ko mu def tajalli génne mbind mi ñuy wax Muhammad defloo ko lu baax pour fay ko wane ne xam na teraanga mbugal gi muy bugalee mu yeyoowu ko wàññiwu ko dara mu def tajal li ci boppam gét génne jalaalam taxawal ko xiir ko ci mu def lu dul noonu bu ëllëgee mu feeñal kàttanam ci moom yu bët yu neex yi di ko gis bët yu naqadi yi teen di xaar loo xam ne yegsi na bu yàgg lii mooy mbir mi kon fi ñuy daanelee mooy ni Yonent bi waxoon te moom la ñuy seedeel suñu suñu sang Mawlaaya Cheikh Saïd mooy dimbale jaam mooy mission te euh, bi waxoon ne allahu fi al abdi maadaama abdu fi axiihi yàlla ci ndimbalal jaam feeg jaam ci ndimbalu mbokkam waaye jaam naka lay dimbalee mbokkam mooy ñëw taxawal ko ci lu ko të bis boo taxaw moromu jaam ci lu ko lu bëggoon te mënu ko yàlla lay utal soxla bu la të léegi mu roof la ko tàggat jaam bu la ci dimbale léegi mu indi ko bu ñëwee di la dimbale yàlla ngi koy tàggatal la bu ko të mu ngi koy tàkk jaam bu ko ko fajal lépp di dox ci yàlla te ko duut baaraam mënoo joxoñ fu mu nekkut lii mooy loo xam ne moo gëlam loo woy jàng yi ji téere yi niti yàlla yi ñoo ci dimbalewoo ji jàng yi ba man cee gindeeku fii la Mawlana Cheikh Saïd arak ñun kon buñ taggee yonent yàlla Muhammad te tagguñ ko tagguñ ko ndax suñ borom mi nga xam ne moo gën a kawe mooy ji kawe ku kawe moo le kawel moo wax ne abdi lam yashkur nii ida lam yashkur man ajraytu niama ala yadayhi sama jaam bi santut ma fekk santut ki ma jaarale xewal yi ci loxoom kon itam bépp jaamam bu taxaw di dimbale ni su fekkee ne santuñu ko kon buñ sante yàlla cant ga du mën a àgg kon jërëjëfe Mawlana Cheikh Saïd walhamdulillahi rabbil alamin wa salaamun ala ala ibadihi alladina stafa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi gul bu baax sëriñ Modou kon mën ngaa jël sa micro. Cheikh Bara kontaan nañ waa ji ne dafa bëgg a sañse bëtëre bi anamu anamu tabaarakallaahu Cheikh Baara Ah, su ko defee Cheikh baara wax dëgg yàlla affaire bee ñu xooj rek waaye fi nga tolloon kenn warul lay dagg wax ji neex na lool ah, tegu na ci yoon ku ko déglu rek danga xam kan mooy nabil Moustapha alayhi salaatu wasalaam ak nim koy waxtaanee ak lan mooy gàmmo ah, tabaarakallaahu defe naa li wax leer na ci nopp yépp xanaa bala ñuy joxe microphone bi feneen dañoo seex Thierno euh, Abdoulaye Bari sëriñ yi suñu sëriñ mu ñëw defal ñi nam daan def allo mu ñëw defal ñi nam daan def seex Abdoulaye Thierno Bari kon nga ñëw fii seex Yunus Bari maa ngi jaaw waaw seex Yunus Bari seex Yunus seex Yunus la ngi jéggalu ci kii bi ki moy Cheikh Yunus a bari ah mu ngi ñey jangal alquran alquran nak, de ngeen li ci kilifa yi wax de ngeen li ci suñu sëriñ wax fu ñey jàngee alquran deram bo xam tek nga ko fofu deram bobu yalla daf koy ful bu muy ay dërëmi dërëmi deram nga jël deram joxe ko fenen nga jël deram tek ko fi ba nga joxe fele buñ la ci bindalee ben way fi fuk lañ la ci bindal kon bismillah ñew leen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا يندو عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلي عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا غنى وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم tabaarakallaahu ahsanal xaaliqiin alquran alquran neex na alquran neex na lool alquran neex na lool buñ koy jàng rek nga xam ne alquran neex na kon ñu ngi sant di gërëm bu baax sëriñ suñu sëriñ di ko bégee bu baax nag xam naa dañuy dellu jàllale microphone bi ci sunu sëriñ Cheikh amadu Ndiaye Cheikh Amadou njaay moom kenn ku nekk xam na ko kenn ku ne xam na ne ci kilifaay xadara bi la bokk ku nekk xam na liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey ca boori njaañeen ak feneen fudut njaañeen ci biir Sénégal ci biir bi fu ne mu fay liggéey liggéey boo xam ne tabaarakallaahu kon Cheikh Amadou dañuy jël microphone bi nekk ko ci sa loxo nga waxtaan ak jaame yàlla yi Auzubillahi minashaitanir rajim. Baik. kon Cheikh Amadou Diary Diop waaye xam naa bala continuer dañ dan def niñ dan def naka lañ dan def moy kala gi nga xam mom lañ dan lal fi di lalal jumaa ji kaala gi liñ bëgg lal su ko defee am na ñoo xam ne ñu nga nekkee ca gannaaw ñi man da yëg si na am ñu jël mbaxana dugg ci biir ñi mën a yëg si yëg si fii ci kaala gi ku ci dugal benn dërëm dërëm boobu yal na ko yàlla ful ful boo xam ne ah yal na ko yàlla ful ci yàlla bu mu waxu loolu yàlla daf koy ful ndax masalu la si ne yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi kamasali habba anbata sab'a sanaabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba loolu defe naa jamono bu ne borom xam-xam ñu ngi koy wax dërëm boo dugal dërëm boobu day soppeeku ay junne junne kon ñu lal kala gi fo ay manane ne ci biir ci biti mo xam ya nga ci kër ga dama dégg xosal taw bi bëttal taw bi nga ñew kala gi nga xamne mom lañ lal fi xamne ne ji lañ ko jaglél lepp lu fi ruusee dañ koy jël yobbu ko ci liggéey jumaa ji ngeen indi eh, ñi tek ko fi kenn ku nekk sa ñaq dem ci juroom fu ko xébuñ témé xébuñ junne xébuñ dërëm lu way xam nako indi fi lu way xam nako indi fi waaw waaw mu ngok su ko defee Ibrahima Kebe comme kaala gi lal nañ ko su ko defee nga wéyal ñi wéy boo xam ne waaj na am na wéy bu mu sàkk baay seet ñaanal aajo yi faju xaama naka la ko bay kii waxee bay daaw da caam waaw waaw bisimilah ñëw leen ñëw leen ci kaala gi ñëw leen ñi ci gannaaw yéen ñi ci gannaaw ñëw leen ci kaala gi ñëw leen ci kaala gi

bismillahi may bëgg way waaju jar di way moo jar way soo xamoon ki may bëgg way bay sayid jarama bismillahi may bëgg way waaju jar di moo jar way soo xamoon ki may bëgg way البر سعيد رما يا دندل الطريق بتي يا دندل الطريق بتي يا دندل سنة رسول الله سعير جرما بسم الله مي بقوا جردي ما جرى ويساق مالك من may ko doonu tey suñu wér may wér ko doonu tey suñu wér may wér ko doonu tey suñu wér loola tax ba kenn du la jot bay sañ lay la la huzmi lay may ويساق معنك Seex Imam waaw ñëw leen ci kaala gi ñëw leen nga yegsi ñi toog ñi toogee ci boori xarfu bi ñii na ñëw boori penk bi ñi ci gannaaw ñëw ci kaala gi ci kaala gi ku mën sa bopp ñëwalal sa bopp ku mën a ñëwal billaahi biit ñëpp ma jara way sa xama ñëw leen ci kaala gi ci kaala gi way bay said ñëw leen ñëw leen ci kaala gi ku mën a ñëwal sa bopp ñëwal sa bopp yaa dundal sari abi yaa dundal sunna si rasulullah ci kaala gi ci kaala gi ñëw leen fii dañuy xàmmee taalibe yi de taalibe bi dem gàmmu bay dem ci poos ba xaalis moo jara way sa xama amna kala gi jigen ñi fi gëna bari de jigen ñi gëna bari ci kala gi de dara diw la la sax xamaan ki may bëgg bay sayid xam ni du ma dul dénk yàlla loo du ko dee ndaa du ma dul dénk tax mu tànn la tey bay sayid jarama gaaw leen ku mën a demal sa bopp demal sa bopp moo jaara way moo jaara kañ moo jaara tàntal maana xam ni du modul dénk doobu yàlla moom du ko dee ndax xam ni du modul dénk doobu yàlla moom du ko loolu tax mu tànn la tey dépense boo doy ci kaala gi aju ci kaala gi feebar bu ci kaala gi may bëgg wuy waaju jara lay lay la la soo xamoon waxamaan yi bëgg sa fan ak wax amin amin ñaan na yàlla yokku sa fan ak wax amiin amiin bay seet ñaan na yàlla yokku sa fan ak wax amiin amiin seet ñaan na yàlla yokku sa fan ak wax amiin borom benn jawar boo ñëw léegi te ñaanal ñu na nga yaa boo ñëw léegi am ñeenteel boo ñëw léegi am ñeenteel way waaju jara di way moo jara way moo jara kay may ci kaala gi ci kaala gi seex imaam gërëm na la yow daan cëral na la seex seex imaam gërëm na la yow daan cëral na la may wér ci bay sayin la la la البدوي ساق معك يا الله يا الله يا كسبان أقوى يا الله يا الله يا كسبان أمين يا الله يا الله يا كسبان أقوى أمين أمين yal na yàlla yokku fan ak wax amin amin wala la ñu nang la yokku te wér bay sayi lay lay la la bismillah may majo ma jar way saqa mala gi may bëgg bay sayi jarama yaakaar jaam ñi bay sañ na xulloo ñi bay sañ na bulloo ñu mbóori sañ itoo maas yaakaaru jaam ñi bay seet na xulloo ñu jaam ñi bay seet na xulloo yaakaaru jaam ñi na xuloo sa na bulu ñu mburi say doomas yaakaaru jaam baay seet na xuloo sa baay seet

design the mass. jërëjëf waaye gaa yi ñu ne dof nu mooy sant ñu ne dof jóob laay sant xaw ma ah gaa yi ngeen baxal ma gaa yi laa dégg ñuy ko wax de xaw ma xab laa jóob fan la toll moom laa bëgg a wax moo tax ma ne dof jóob laay sant tabaarakala Ibrahima yëf yi neex na lool wéy yi neex na lool affaire bi niñ ko mixé baax na lool kontaan nañ bu baax xam naa Cheikh Abdoulaye jóob Abdoulaye Diop foo mën a ne foo man a ne am na ñoo ñu ngi leen di laaj Abdoulaye jóob ñu ni gisuñu ko waaye xam naa ne yaa ngi ci biir waaye foo mën a ne ndaamal sookoon soxla nañ la fii ci tànt bi nga ñëw gars yi bàyyi nañ la place boo xam ne bu la neexee waaxu jëm ndeyjoor bu la neexee waaxu jëm càmmooy ñetti Muhammad yi nga xam ne moo fi tegee nag bu la neexee nga jaar ca Muhammadam asal ba yàlla bindagul benn mbindeef fa Maodo doon waxee ne wa innahu is aradallahu nas atana abana min nourihi la yàlla tànqoon na lii bu la neexee nga dalee foofu bu la neexee nga dalee ci biñ koo sollee jëmm bu la neexee it nga dalee ci mi nga xam ne mooy Muhammad mi nga xam ne du fi jog daa imoon du fi jog tabaarakallaahu kon Ablaye Diop ñu ngi koy xaaraandu fii xaw ma naka la kenn waxagul mu ngi nii de wala anamu bu la neexee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 rabbil alamin alhamdulillah ala kulli haal mbokk yi ci yàlla ñu ngi leen di ziyaara e, di leen màggal bu baax di jiital ci ziyaar bi ki nga xam ne rek moom la yàlla jiital ci suñ baatin waaw danañ ci ñàmbaasit ci sas wi mooy jikkoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ko mboolam yoo am lan moo doon jikkoom ba mu wax ba ba mu wax ne ba yàlla wax ne ba mu yonent bi wax ne adabani rabbi fa ahsana tahdi bii ba yàlla ne ko wa innaka laxalaa xuluqin azim Ablaye Diop di wax ne ki nga xam ne moom la yàlla jiital ci suñ baatin jiital ko ci suñ saayir muy Maulana Cheikh Saïd Omar Kebbe Baye Seet mooy koo xam ne ku xam jikkoom xam jikkoy baatinu yonent bi xam jikkoy saayiru yonent bi doy na sëkk mboolem ku yàlla dimbale nga dajeeg bàyyi seet daje nga ak yonent bi yonent bi laa ilaha illallah la ko yàlla jox laa ilaha illallah ba su fekkee am na lu ci manqué woon ci leer yàlla jox na ko Maolana Cheikh say Omar Kébé mu dugal ko ci suñ jëmm amul nit kuy xam laa ilaha illallah sa mbaax manqué amul nit kuy xam ñàkk a xam laa ilaha illallah sa mbaax mat bàyyi seen mission benn rek la loolu rek la waaye su fekkee yonent bi la ak Muhammad Muhammad nekk na di Muhammad ñu nekk di Muhammad comme moom jëmmam ji mooy Muhammad su fekkee jikkoy leen bi la jikkoy yonent bi mat na sëkk ci Maulana Cheikh Seyd Omar Kébé doy na sëkk ñu ngi leen di siyaara programme boo koy jox nit da nga ko koy wax balaa muy dugg si waaye taxaw fii ñu ne ma jikkoy yonent bi xaw ma ca moom dara jikkoy bàyyi seet laay waxtaan Cheikh Bassir ñu ngi leen di siyaara bu baax tey sant yàlla di leen màggal xam nga mbir yi nii rek la waaye ñu ngi am mbégte bu rëy ci kalifa yi nga xam na ñoom ñoo teew ci tant bi yenent bi su ko yàlla xamalutoon laa ilaha illallah billahi li Cheikh du wax léegi muy adabani rabbi fa ahsana taadibi loolu mu ngi ballee ci laa ilaha illallah waaye laa ilaha illallah mu ngi ballee ci Allah mu des nag ki nga xam ne jot na ci te moom lim jot mu xam ko ëlbate ko dund ko te yàlla tax cay bàyyi seet gis nga jiw li xar ci la bokk ci jiwu ji la bokk waaye liy sax mooy li xarut Mawlana Cheikh Seyd Omar Kébé bu fekkee da nga jàkkaarloog moom nangu ne mooy yonent bi am nga ngërëmal yàlla waaye su fekkee da nga jàkkaarloog moom yow sa bopp mënoo gis yonent bi ci moom réere nga yàlla parce que jëmm yi ñëw fii yëpp jagle bu Maulana Cheikh Seyd am ci yonent bi moo leen fi indi ci lan ci yar ci teggin gi ci mbaax gi ci jub gi ci ndimbale gi cay bàyyi seet suñ dajee ñun téeméeri junney nit ñu pare pour uutu Baye Seet ci jotaay bi danañ ko wut ci suñ ruu ut ko ci suñ xel ut ko ci suñ xol waaye lu tax duñ ko mun a jot yàlla noonu la yàlla noonu la inna laa yab asu fii kulli xarnin man yu jëddit jamono Cheikh ma Tidiane dañ ne moom la parce que booba moom mooy yeneen ci bi ci jamono yeneen ci yàlla Muhammad dañ ko joxon ne mom la baram yep ko ñibil waaye jamono Maulana Cheikh said Omar kebbe baram yep ko ñibil baram yoy nak ñibil bàyyi set moy yan baaraam doomu adama foog naa buy jàpp dana raxas ay loxom waaye ndox mi mo koy tont ne ko ndox du setal loxo doomu aadama buy jàpp dana raxas gémmiñam ndox mi mo koy tont ne ko ndox du setal gémmiñ Ibrahima yàppi yaram ba mu jeex lépp ndox la ndox moom ma mënta setal ndox waaye bi nga ñëwee ba ci gémmiñ gi nga raxas ko ndox mi setut nga dem ci bakkan bi raxas ko ndox mi setut nga dem ci bët yi raxas ko ndox mi dem ci nopp yeeg bopp bi raxas ko ndox mi setut dama nga wuti li yàlla waxoon yàlla mu ne ku bëgg am jikko yonent bi yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhil wasila looloo ñu indi kër Maolana Cheikh Sayd Omar Kébé gis nga bu dul bàyyi julli gi du baax or gi du baax aj màkk gi du baax yàlla moom ci jëmmi boppam moo jël nit yàlla yi def leen buum yoor leen nga jàpp ci ñoom mën a jog ca yàlla loolu moo nekk suñu digganteeg bàyyi seet waaye Ibrahima addina bu fekkee nekk nga fi te gisoo addina di dund te àddina te yëgoo àddina mooy da amul mag mu toll ni bàyyi seet nit da am kilifa boo xam ne mooy sëbe sa ruu nga am kilifa bu sëbe sa xalaat nga am kilifa bu sëbe sa wërsëg nga am kilifa bu sëbe sa martaba ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk ci ñun bàyyi seet mooy ki sëbe sa martaba nii la mbir yi demee eh, yonent bi yàlla daf ci jàngale lu leer yàlla bim jele yonenti bi di kom la jele def ko muy yonent bi parce que yàlla xam na ne mom leer la te léegi yende yi ngeen may may ni mom mo non ngeen ma bàyyi mu continuer rek ngeen taxaw téye loxoy yonenti bi yàlla kom leer la xam nga nu muy def da lu xoolal li bés yi woy ci yonenti bi muhammadun basarun nga ne ah mu ne waaw mu ne waay laakal basar بل huwa kal بين الحجر al xajar léegi ngeen taxaw Muhammad nit la comme yéen waaye lan mooy yaqut ba du wut jëmmi ngay xol gis leer gi di mel xati déedéet jikko ja jikko ja ci kaddom ya yonent bi mo rus yàlla ba ci bir jikkoom ak bir kàddam lépp day teggu ci mizan bu wér kep way nak deug deug so ñewé ñu netali la yonent bi nga ne man de awma sens juddoowuma màkka te gisuma ko yàlla dimbale la ci kattanam nga dajeeg Maulana Cheikh Sayid xam nga lu mu lay jàngal yàlla ne la man musuma manki soo waroon a mar yonent bi yokk si jën bopp nga dajeeg Maulana Cheikh Sayid Omar Kebbe mu teg tànkam nga xàmmee tànk ba ndeyjoor ba haqiqa la ah, càmmooy ba sariya la la Cheikh ma Tidiane Serif waxoon bàyyi seet la ko waxal képp ku dégg suma kàddu gis suma dund mu ne peese ma rek ci sariya bàyyi seet yàqut sariya moo defar sariya waaye bàyyi seet la manqué woon ci sariya moo ko indi parce que moo am xaqiqa bu leer cey Maolana Cheikh Say gis nga bu nekkutoon nag bàyyi seet ñun suñ xalaat yi dee nañu suñ wërsëg dee na suñ lépp dee na waaye jërëjëf Maolana Cheikh Say kuy ut jikko yonent wala ngay wut jëmmi yonent bi ba dajeeg Maulana Cheikh Saïd ma ne àgg nga soo ko rombee dootoo gis keneen soo ko rombee dootoo gis keneen sëriñ seen ñëpp d'accord nañ ci yar ruuhu yi yar xelaat yi yar jikko yi kooku mooy Baye Seex yal na yàggam lool képp ku ne amin sa fan gudd إبراهيم جلال beneen micro جلال jëlal beneen تانغ bi ده ما ngay أفير سليمان بأسمي سب جل ما يا ليرجن إيه ومن هو آية الكبرى أفير سليمان بأسمي جل ما مكة يا اللي لمغتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم أفي سليمان بأسي سبو نيال ما قيال الجن أنا لن تلو غيدا في نو مقال مولانا سبو أيو أيو أيو سبو نيال ما قيال الجن إخوة إيه السيخ إبراهيم نعم جاي دنيو تكفاسي ني سولدالي البتكو دي قاراني يالا تي بوبم جانغالة قاراني بني قاراني تباي سيد كبه لا ولا لن لا نكتا يالا لن يو قاراني تباي سيد أفي سليمان بأسي سبو ما قيال الجن محمد بسليم مخال وخال من يا خير من يا ماما أفو نصابته شاعيا وفوق متون العين قرسم أفير سليمان بعسمي سبو نعم قيال القم أنا لا دفين ما قال مولانا شيخ أفير سليمان بعسمي سبو نعم قيال القم إيه دق دق نكن وين أنت يا الله محمد أفير سليمان من بعسمي سبو نما قيال إيه يا الله تجمي بابا مو أم جن الليل afir sliman bi asmi sabo ñamak yalel ga eh, yàlla moo am genn leer gu muy dënkaane mu dënk ko yonent yàlla adama mu doxal wàllam Moussa doxal wàllam doxal wàllam ba yonent yàlla Muhammad ñëw afir sliman bi asmi sabo ñamak yalel eh, waxal mu ne lillahi darul ladhi qad kana maadiahu waaye wara تايرة في تايري سيمي أفير سليمان بأسمي سبو نيال مكيا للغن لارك يالا دنك نكو ينتي يالا آدم موي تغلو دي تغلو واي دك دك دك كان موي موتلي لارك نيني محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبيم نيوي لان موخيو أفير سليمان بأسمي سبو نيال مكيا للغن أنا طالبي باي سيدي دفلين نينو مالك أيو أيو saba njël ma xaalel gaan xoolal Cheikh Seydi Hadji Malick mu ne yeneen bi bi muy juddu li xew lan la mm. Ibrahima liir bu juddoo day takk yàlla ne yeneen bi buy juddu lu takk liir bi juddu te takkut mooy yeneen bi lu Maodo wax wa xarajathu mm. nazifan ما به قذر والله لملا ومن تبع تجر لستب اثير سليمان باسي سبو نير مكي الين انا لا دفين دفيلو قال مولانا شيخ بصير سب اثير سليمان بعسي مي سبو يا مكي الين واي غيس يالا لم بند ييب سو بند تون يونت يالا محمد مير اثير سليمان باسي سبو نير مكي الين اي ابراهيم موسى رسول الله لا أفير سليمان بأسني سبا نير ما قيال القلب وغلنا إبراهيم رسول الله إلا أفير سليمان بأسني سبا نير ما قيال القلب واجس قبوان لا إله إلا الله محمد رسول الله مير مسوق دو أفير سليمان بأسني سبا نير ما قيال القلب دق دق نكندو مولانا سيسيرو مركب أفير سليمان بأسني سبا نير ما قيال القلب كاي دنيا بعد بجنتي بعدي بعد بجنب فرتي بعدي مو لا إله إلا الله مولانا سيسيرو مركب منه صوتي يمي دا غاي دانو لا اله الا الله يونتي بي من عرف نفسه فقد عرف ربه كوم لير تي سا لير بور يالا لا اله الا الله انا سوبي مولانا سي سي ديف لي نينو ماغال كو بور يالا لا اله الا الله امنا ساير تي امنا باتين امنا باتين وباتين بور يالا لا لا اله الا الله اي يغل ني سي بات بي تي لا يالا ماغالي رسول الله ورفعنا لك ذكرك بور يالا لا إلا إلا لا إله دق دق دق حقيقة لا لا إلا إلا لا بري الله لا إله إلا لا أبى تبرم مدينة الأنوار من لا إلا إلا لا سائر بأول لا باتن بموم تجنب بموم آخره واي باتن وباتن بعلا كيف تبير مهلا بري الله لا إله إلا لا أمين أنا في نومك تجنب مدينة الأنوار بري الله لا laa ilaaha illallaah Ibrahima Kebe. baat bi moo dox ci diggante yéeféer ak jullit. buur yàlla laa ilaaha illallaah. waaye nag ci diggante yéeféer ak jullit rek ci la laa ilaaha illallaah ne. buur yàlla laa ilaaha illallaah. gis nga diggante Arif ak Am. ci la laa ilaaha illallaah nekk. bur yàlla laa ilaaha illallaah. Cheikh Jim Diop xam laa ilaaha illallaah am na.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 وريا الله لا اله الا الله مولانا Cheikh Seydou Omar Kébé mu ne fukki arab yi ak ñaar jigéen la waaye fukki arab yi ak ñett góor la bur yàlla la ilaha illallah fukki arab yi la ilaha illallah ak ñetti arab góor la fukki arab yi ak ñaar Ibrahima jigéen la bur yàlla la ilaha illallah Ibrahima fukki arab ak ñaar fukki araf ak ñett soo leen boolantee ñaata la. 25. 25. Mhm. yonent yàlla dugal ci seen tur yi ci biir alquran ju ñaar fukki yonent lañ ak juróom. ñaar fukki ak juróom ñaata juróom la. juróomi juróom. eh juróomi juróom la. juróomi juróomi juróom ba juróomi juróom ba juróomi juróom def leen nii ci bàyyi seet. bur yàlla laa ilaaha illallah. Ibrahima Kébé bankal baaram neen ulul asbi juróom la. juróom lañ. ulul asbi juróom lañ. ñan ñooy ulul asmi. Mm, nuu ca la bokkoon. dégg nga ko de mu ne Nuhun ca la bokkoon. Ibrahim ca la eh, mu ne Ibrahima ca la bokkoon. Moussa ca eh, mu ne Moussa ca la bokkoon cey baay seet. Esa ca la bokkoon. bu romb taxawal taxawal cey cey cey baay seet def leen ni nu góor ga ca anwaar. afiiru Slimaan bi asi sabo njol makk yaa leen gën. Ibrahima Kebe. Hmm? yonent yàlla Moussa. Hmm? bopp bi miim la Mouhamad bopp miim la. allahu akbar. te Muhammad buñ koy bind ci haqiqatu Muhammad ya waxuma alam bii. da def miim miim mu mooy Muhammad Madu da miim miim xaadim dellu deel. tuy mamadat fatratum min al rusli ne ko noo koy tuddee. basarat mu ne kon buñ koy jàng dañ naan <laughs> Muhammad taxaw. waaye ñu daw ba ci Maulana Cheikh Seyd Omar Kebbe mi nga xam ne tasrufaatul ilaahiya moom la ko yàlla yënkewal gis nga yàlla bi mu bëggee waxtaan ak yonent bi foo ñëw da ñëw taxaw waram woon wookat lam tasal fi dama il kaw ni li ci xew mooy yonent yàlla Moussa ci wul asmi miim la Mouhamad miim la bàyyi sa Kebbe cey cey cey cey cey Mawlana Cheikh Say lam tasal fi damairil kawni tuxtaar mu ne dellu waxtal ci xaqiqatu muhammadiya yeneen ci bi mu muy rañaan waxul ak Esa waxul ak Ibrahima te ñoom ak nuun te ñoom ñëpp ulul asmi la lan moo tax mu wax ak Moussa lam tasal fi damairil kawni tuxtaar dëgg-dëgg li góor gi feeñal nëbbatu woon na ci yàlla ak jaam ñi waaye yàlla nëbbati ko ci boppam dugal ko ci bàyyi seet bu leeral ko laka al ummahaatu al abaa xaaral ma leeral ñaari mimi ñu dem julli ji tabaaraka al unsuur wa tasma bika aliyaaw baada aliyaaw est-ce que xam nga ne yaa ngi waxtaan ne bika aliyaaw baada aliyaaw waaye Ibrahima damay leeral ñaari mimi bismillah mimu Moussa ak mimu Muhammad soo gisee Muhammad moom ci boppam mu nekk xaatimu nabiyyiin nekk imaamil mursaliin mooy miim gi ñuy tuddee bopp. miim ni da nga koy jam paaka ci biir dellu Mamadou Lamine koy jam paaka ci biir moom ci boppam du tax mu dee waaye soo tàqalee baat bi ak jëmm ji mu faatu moo tax nit mënta dund ci sariya te yow sa jëm bopp gisoo Muhammad ah kon mu ne comme julli gi jot miim miim miim yoo Mamadou Lamine miim hadam del Amadou Lamine mim hadam del Amadou Lamine mim hadam del Amadou Lamine ma woy ngeen aw ma ñu woyandoo Mamadou Lamine mim hadam del Amadou Lamine ca kaw Kom. Ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على السلام الصلاة قيام amna na portable bu ñu for portable bu mag mu ngi ni ñu ko yoré képp ko xam ne yaa ko moom bo ñëwé bo ñëwee boo bi ñu jox la ko wala bu féké numéro bi xam nga ko ñu call numéro bi bu yoy ñu jox la ko portable mu ngi ni ngeen dem ji